yeeg euh, xarit yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd beeg seen site bi di Sunugal 24 di am mbégte lool nag ak bànneex ci dellu siwaat fas yéene àndaat ak yéen ci seen émission Kër Mbaye ak ni ñu koy defee saa su ne xam ngeen ni waa ñaw xalima laa fii indi ndax tabarkàlla macha allah jamono bi moo fa toll te askan wi ñoo koy laaj euh, comme nag yéen a koy demandé ñooy ki koy donné bu ngeen ko fi lesee kenn du ko mës sa prendre lool moo tax rek saa su ne ñuy jéem a def sunu kemtalaayal kàttan indi koo xamante ni dana leen amal njëriñ ki ñu indi nag wax naa leen du gan ci man parce que yàgg nañu man a moom waaye nag jamono bi jaar na fi résultat yi la macha allah ak ni ko askan wi rafet loo tax rek ma delloo si ko waat fas yéene àndaat ak moom Serigne Yadaali Ndiaye la ñu koy wax mu jóge ba diwaanu Touba ñu fas yéene ànd ak moom ci waxtaan rek xool ba xam ndax nag dinañ samp ay banqaasam ci Ndakaaru waaw wala déet wala ndax Touba kese lay yem ci kàttanu borom bi su ko defee loolu lépp ci biir waxtaan wi lay doon Serigne Yadaali maa ngi lay nuyu di la ziar. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu soxna Mbaye maa ngi lay fay. Mm. di nuyu sa émission bi kër gi ñoo ngi leen di siyaar bu baax di nuyu borom xam-xam yi nuy seetaan ak borom xel yu nuy taataan di la ziar di ziar ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah ñëpp a ngi lay delloo ziar euh, di la massawu coono yi parce que nag euh, diggante bi nga fi jaaree ak léegi mm-hmm. tabarkàlla macha allah jot gi sax euh, mayu la ko waaye nag def nga sa kéemtalaayal kàttan pour dellu si waat ci li nga mm-hmm. xamante ni mooy waxtaan wi mm-hmm. gën a waat indi ay leeral dolli waaye itam ñu laaj la itam ginnaaw bi nga xamante ni jaar nga fi ci émission bi lan moo ëpp ci li nga xamante ni moom lañ lay sàkku ci ñaan te yaa ngi ciy gis ay résultat waa jërëjëf soxna Mbaye loolu dinaa si sawar a tontu ndax xam nga askan wi ñoo sonn. Mm. man boo gisee ñaar ma toog ay at yu baree bari génn ma waxuma. Mm. li taxoon ma toog leeraloon naa la ko si sama yoon yu ma fi njëkkee jaar. Mm-hmm. waaye soo génnaatee da ngay xam ne problème yi ba léegi wax dëgg yàlla mi ngi ci askan wi te askan wi sonn na tey la gën a ay tey gën a aay. Mm-hmm. ñiy jàmbat bari na. Mm. appel yi da ngay ku la woo daanaka lim lay jàmbat mooy sëñ bi kat laataa ñuy egg si yow fu nekk wër nañ fa ñi naan man lay bari na mm. bari na ay jàngoro yoo xamante ni mi ngi ci askan wi te tële nañ ku leen ko fajal mm. wax dëgg yàlla lim ñuy jàmbat bari na mbooleem luñ fi wax rek daanaka saabu bu nit ñi xëyee ñu ngi wër ku leen ko mën a saafaraal te yàgg nañ koo wër te pour ñu dis ko problème lay doon bokk na si li tax ñu dellu siwaat fi pour gën a yaatal ñi nga xamante ni ñoo ñuy bàyyi xel ak ñi nga mm-hmm. xamante ni sonn nañ ci seen tawat amun ku mm-hmm. leen ko fajal mm-hmm. sonn nañ ci seen yitte te amun ku leen ci ñaanal yàlla ba yitte jooju mën a saafarawu ah, ñu yombalal leen suñu jëmm pour ñu mën a egg si man ñu jàppal leen loolu la te te jamono dafay dox bu jamono day dox dangay dox àndandoo ak moom nouvelle technologie la ñu wax te fii lañ ko war a mën a jaarale waaye nag euh, macha allah fa tabarakallahu am na ci ñoo xamante ni seen résultat mi ngi tàmbalee wadd ndax am nañu mbégte lool ci ci eh, yow mm. waaye nag eh, bala may dugg ci wàllu waxtaan wi Euh, ñi nga xamante ni ñooy ñëw ci yow dañ lay na la jaar naa ci diw mm-hmm. lekk na sama xaalis diw mm-hmm. dem naa fa mm-hmm. ba mu jëlee sama xaalis la ma tëlee fay loolu moom dootul jóg ci sama waxtaan ci biir émission bi parce que nag am na ci loo xamante ni mbayang mënu koo topp ba mu sës waaye sëriñ bi toog mooy seet digganteem ak boromam mu doxal ci doxalin bu rafet la ca des mu bàyyi ak sunu borom su ko defee sunu borom sottal wala mu ñàkk sottal te yàlla na yàlla sottal lan ngay wax sa mbokki ñaankat yooyu waaw liñ leen di wax soxna mbayang du du ma ko jóg di ko wax bëri na waaye sëriñ boo xamante ni danga koy gis àdduna mm-hmm. wuyu ko lool mm-hmm. askan yu soxla ko lool mm-hmm. ñu koy rang ba bëccëg jekki ba boo ko gisee ne xanaa kii du moom lenn képp moo ko mën a teg sëriñ wàññi ijaabaam ba dootul xamati dara muy lekk alalu moodu moodu ak sax ku dul moodu moodu lekk ak rek baaxul mën nga see am lu ne waaye am am bi du yàgg ak yow bu dee pouvoir du yàgg ak yow képp koo xamante ni yaa ngi jëflante ak askan wi dee leen wax loo man mhm. deel defit loo xamante ne nii boo tëddee si sa biir bàmmeel wax dëgg yàlla di nga fa man a yaatu di nga fa man a di nga fa a nekk ci jàmm am na solo ndax lépp lu waay def fii ëllëg di nga ko defaat dëgg la lépp lu waay wax ëllëg di nga ko waxaat mhm. man nag bokkuma ci sëriñ si naan man naa lépp bokkuma ci sëriñ siy jël xaalisu nit ki ba noppi te duma te duma la defal la nga bëgg wala duma la wuyu ab jullit laa damay ñaan ci yàlla mhm. ki may jëflanteel dañuy bokk ànd gëm yàlla bokk tàllal suñu loxo suñu borom ñaan waaye nag bëri na yoon yu nuy jaar yoo xamante ni kin ciy jëflanteel ci wàllu ñaan ci kàttanu yàlla ak mbaaxam buñ ko mhm. nee lii dina am insha allahu rabbi fu ñu wér lan ko teg ne buñ ci ñaanee yàlla day sotti d'accord lépp lu ma lu may dugg lu nekk dañ koy xool ba seet ko settantal ko soog siy dugg su ma wóoree ni lii du sotti dama naan la lii kat sëñ bi mënuma si dara bu mhm. fekkente ni mën naa si dara dama naan la ah lii bu nu si waxtaanee si cadre nangam dina la si dimbali si nangam waaye képp ku koy def daal maa ngi lay ñaan nga ba ko ndax wax dëgg yàlla mën naa delloo nit ginnaaw mën naa indil nit ay problème fii fan jëm macha allah boo ci waxee loolu ne mën naa delloo nit ginnaaw dama koy gëm ne looy dund la parce que 2014 je crois wala bien avant ci lañ commencé ànd. Mhm. nga nekk euh, tout tànk bu teel a dugg ci wàllu ñaan. Mhm. ndax li nga xamante ni sa wayjur doyloo na la ba jël la dénk la ko defoon la bras droit am mm-hmm. euh, macha allah bagage yu bari mu dénk la ko mm-hmm. nga di ko doxal itam boobaak léegi mm-hmm. euh, tabarkàlla macha allah yaa ngi sant bu baax kon lu leew ngay lekk moom ngay dundee donc euh, Serigne Yadaal yi moom la ñu àndal noonu ci émission bi mu nekk ñaankat boo xamante ni kenn du ko weddi ndax fa mu soqi koo waaye ba tey bala ñoo dugg ci wàllu ñaan geeg yooyu Serigne Yadaal yi dafay seet bari na luñ koy seetloo ci lu jëm ci wàllu néegu sëy bari na koy seetloo ci lu jëm ci wàllu kayit bari na itam lu luñ koy seetloo ci ñi nga xamante ni dañoo bëgg a tukki ak yooyu. Mm. sëñ ya daal yi lan lay seete ba ko mu seetal ne la kayit gi doo ci jot wala di ci jot. Mm. rek tabarkalla macha allah yàlla jaarale ko foofu lan lay seete. waa dëgg la xam nga soxna Mbaye li nga wax léegi dafa am solo. Mm. xam nga man nit laa koo xamante ni li may def. dama koo tàmbali ci sama keppaaru waajur. Mm-hmm. man sama waajur da daan toog nii day toog nii si biti mm. nit ñëw ne salaamaaleykum ana sëñi daali moom mooy jóg mm. dalal la nga toog kon li may def man na bët bëtuwuma si déedéet ba nii ma nekkee si sama alalu bopp di fa liggéey muy samay kër di fa liggéeye mm. moom ma si jox ndigal te du toog weer wum ñëwul sama kër gën gaa néew ñaari yoon wala ñett yoon dégg naa am na ruq yoo xamante ni bu fa daan dem sax yow lay jël nga ànd ak moom dawalal ko soo bëggee dégg dëgg fépp loolu am na wala fépp fu muy mas a dem di fa wuti ay garab secret bu muy wutee ay garab lu ci bëri buñ masaana dem man maa koy jënd man maa koy wut est-ce que xam nga ne wax nañ ma ko fii te barki Mouhamed ab Mbàkke Mbàkke moo ma ko wax lii ma lay wax nii yàlla xam ne ne bu la neexee ñi ma bokkal ñëpp ñuy def lii laaj leen waaw ñun li ñu yor day lu wér dëgg la listixaar ñun dañ koy def dañuy seet mm. te li def lu wér la loo xamante ni mm. wax dëgg yàlla mm-hmm. ñi ma siy mere mooy ëpp ñi ma ñi siy ànd ak man mm-hmm. ndax man du man maa lay seetal di la wax li la neex mm-hmm. su ma la seetalee li ma gis laay wax. Mhm. lii amit laa lay wax. dëgg la buñ la seetalee ci wàllu kayit bu dee waroo cee jot dama naan la lii waroo cee jot. bu dee soxna soo bëgg a takk bu dee munoo koo takk dama naan la munoo koo takk. Mhm. ndax it bokkuma sëriñ si nga xamante ne dañuy xaar kun seetal wala kun ñaanal soo ko amub dépasse. dëgg la macha allah yaa ngi sant yàlla daf ñuy teral ba teraanga joo xamante ni bu ñu bàyyi woon ñaan sax amuñu problème. Mhm. kon képp koo xam ne ñoo ngi jëflanteeg ci wàllu ñaan di la seetal. liñ gis si yow lan lay wax. suñ la munta ñaanal wala sa yitte buñ ci munta ñaanit li li lan lay wax rek li fi nekk lii mënuñu cee ñaan wala mën nañ cee ñaan wala kat su fekkee bëgg ku la ci ñaanal bu dee lu war a mën a sotti la ci yoon wi lañ ciy ñaan d'accord buñ ko mënee bismillah buñ ko mënul nga xool keneen ku lan mooy gàllankoor nit mhm. ba mu bëgg a toppatoo këyit mu di ko të lan moo koy gàllankoor waa xam nga loolu buñ ci duggee rek loolu rek mën naa jeexal émission bi gis nga soxna Mbaye rek maanaam gis ko doomu aadama dafa am luy nekk ak moom loo xamante ni lii lu koy aar la lii lu koy yàqal la mhm. muy wàllu cat mhm. di wàllu àndandoo ak ci biir famille ci biir mhm. dëkkuwaay yi nit dina bokk ci askan woo xamante ne ni dafay jekke man dara jekki-jekki dootul mënati dara cat muy catu bët wala catu làmmiñ dina ko def nit ki nit ki am na ay àndandoo yu nekk si moom yoo xam ne xam nga bu njëkk mag ñi dañ la daan wax naan bu dee jigéen la booy génn waxtu sàngam deel muuru su dee góor la ñu ne la bul génn waxtu sàngam mm. bul jaar place sàngam mm. su guddi jotee booy tëdd na nga léemu si nangam mm. sooy dugg si duus na nga wax nangam léegi nag loolu lépp amatu fi mm-hmm. kon fokk li li mag ñi daan moytuloo askan wi ba tax ñuy joxe léemaay yooyu te ndaw ñi defatuñ ko mm-hmm. force kon lañ lañ daan fànqal nit ñi di dal si kaw nit ñi tey dañuy am ay gàllankoor ci lépp lu ñuy toppatoo très bien nit ki mën naa jóge fii aw yoonam mu wàcc ko ba jekk bu demee du am dara mm-hmm. lay tax loolu am day fekk mu desee waaj aw yoonam wala mu desee def ay listixaar yu wér yoo xamante ni moo koy wan gàllankoor ya nekk ci kanamam mhm. wan ko la koy fax ko la koy fànq ba noppi fànqal ko ko mu soog a dem kon lu waay di dugg lu ne da nga war a seet lépp lu waay di dugg balaa nga siy dugg na ko xool bu dee oto booy jënd bu dee mhm. yoon wooy dem bu dee kër bëgg bu dee mhm. soxna soo bëgg lépp loo ciy dugg te seetoo ko boo duggee ba ci biir la la cay naqari mooy ëpp la la cay neex kon lépp lu nit ki di def si àdduna moo xam kër goo dëkke moo xam lépp loo bëgg ci sa àdduna lu jëm ci sa ci yow mbaa sa njaboot na nga ko mm. xool la tànk nga siy dugg soo ko defee yàlla mën na la see may ndam kon yëf yi du ñun dong dafa am ñoo xamante ni ñoom lañ ko bokkal muy xëccoog ñun très dafa am yoo xamante nii xam nga yàlla moo wax ne wa maa xalaqtul jinne wal insi ilaa liya'budu mm-hmm. xam nga kon jinne lu am la mm-hmm. yàlla moo ne binduma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma mm-hmm. jinne yooyu nag am na ci ñoo xamante ni ci ci lu baax rek la ñuy dox am na ci ñoo xam ne ci safaan rek la ñuy dox ni nit di gisee di bëgg noonu la jinne di gisee di bëgg mhm. léegi nag bu fekkee yow ki nga bëgg du ko ki la bëgg du ko baax te munoo fexe ba dox sa diggante yow moom xamoo ne am na lu nekk ak yow parce que mhm. bari na nit ñooy gis ñu wéet ci seen lan mhm. ñu baal ñu ci wax ji di fos seen awra ba seen aw ba yëg seen bopp te bu bu bu noppee ci lool ak dañuy jooy mbaa ñu jóg jàpp dañ koy rëccu dañ koy rëccu ne lii bu du ma ko defati mais suñ tëddaatee buñ ko waree def dañuy fàtte lan jooy yeen jooyoon démb ak ñaan yeen ca ñaano ak naafili yeen def force ñu defaat ko soo ko mën a nelaw. kon jinne ak rab mën naa dugg nit ba muy mballu boppam di fooye awraam. man mën naa jàpp nit ki ba di ko xër si ak mooy yàlla gu taw a dakk mën naa jàpp nit ki tëj wàllu wërsëgam mën naa jàpp nit ki tëj ko ba sax du am doom. pexe am na ci. pexe am na si si bu gaaw si lu wér loo xamante ni bu dee man sëñ daali njaay mm. su ma ko xoolee muy wàllu àndandoo bi nga xamante ni parce que am na si yoo xam ne foofu bëgg naa ñu taxaw si. ndax mm. Mm. wàllu rab. du caagante ni yépp la ñuy defi ñaan. dëgg la fi mu ne rab dina dal nit ki sonal ko lool mu weex la si xaalis bu dul jeex te ay sarax a koy dindi mhm. sarax yi aajowul nga naan ko jox ma ma génneel la ko boo ko digalee rek bu ko defee aajoom saafarawu ah léeg-léeg nit ñëw dina ñëw am problème mu rab waaw nga ne ko jarul ma lay jox dara jarul nga may jox dara saraxeel nangam daf yoo xam ne bu nekkee si nit ki soxlawul sax nga koy ñaanal mhm. jëlal turam date de naissance am turu yaayam li sa ay mbiram mu da lay wan na kat sarax yi nga xam ne moo mën a fànq nga digal ko ko yàlla ne ne ne nit la ko siy defal léeg-léegi nit weexal si sëriñ loo xam ne nii boo ko digalee sarax bu ko defee toog ab diir gisatul dara day foog na yow xëy na diir bi ngeen xamante yëpp ci moom nga nekk di ko ñaan te fekk sarax ya nga ko digal rek moo faj ay aajo. te ni nag ci affaire bi ci kurus koy def très bien te loolu nit ki dina am soxla yoo xamante ni yàlla xam ne ne boo ko digalee ay sarax rek bu ko génnee ajoom faju wàllu cat am na si wàllu cat yoo cat yoo xam ne bu la jàppee sangat képp moo ko mën a fànq ci yow mhm. cat nag du loo xamante nii luy dañ si nit ki à vie la mhm. waaye mën nan la cee protéger ba yow ci sa jëm bopp yooyu mais am protégement yooyu wàllu cat du la yàqal dara ba pare de ten à autre ngay dem di sangatu léegi-léegi mu ñu digal la sarax yoo xam ne da nga koy def waaye du sax foo toll di sangu mhm. liñ lay defal ci diir bu gàtt nga koy sangoo ak loo xamante ni dañ la koy jox nga takk ko bu amee ñeen fukki guddi nga tekki denc saa boo toogee ba yëgaat sa yaram di diis wala muy am ay kii sarax yañ la waxoon demal def ko boo ko defee du jar sax ngay woowaat sëñ ji daal yi sa ajo day faj te loolu yëpp ci seet gi nga ko te loolu lépp ci seet nga ko man man du ma du ma jox nit garab te seetu ma ko. d'accord waaye lépp lu la joxit ba seet ko incha allahu taala résultat yu wér lañ ciy xaar ci kàttu yàlla loolu moo tax ba muy gone ba léegi macha allah ñuy ànd man ak moom ci wàllu émission mm. tabaarkàlla yàlla di ko may ay résultat mm. bu dul dara sax ngërëmal ay wéy waajuram rek mën na koo yóbbu ba fu mu jëm ba lu mu laal lu ne yàlla barkeel ko mm. yàlla na ko yàlla def yow mi nga xamante ne bëgg nga eh, ci barke boobu woo ko 77 122 77 60 77 122 77 60 wala 76 842 74 72 76 842 74 72 mooy numéro Serigne Yaddaali mu ngi tuubaa des fois di ngay faral di ñëw Dakar. waa léegi-léegi ñu ñëw fi nag waaye li ñuy nekk tuubaa moo ëpp ndax xam nga man soxna Mbaye du ma Serigne buy luwee man ku ma soxla sama kër nga may fekk. waa ci appartement yu baax yi nag doo ñëw wut ci nag ñëw toog liggéeyal yàlla yàlla xam na ne ku ma soxla bu la ko jaralee dangay ngay taal sa oto ñëw fekk ma sama kër mais ci ban kër parce que dégg naa kër yi bari na dégg naa saña daali féex na boo duggee Touba rek boo wootee ñu wax la fi ñu féete <laughs> wax dëgg ci ban kër la ci ah waaw boo duggee Touba daal. man de war nga ma faa dagal suuf. ah waaw boo duggee Touba daal woo Sëñ Daani Njaay ne ko yow laa soxla bu soobee Sëriñ Touba dina la tegtal ba léegi it. Uh-huh. am na ñu ñuy jëflanteel ñu nekk fii. ndax xam nga liggéey yi léegi dafa dem a dem a dem ba ñu baree bari bari buñ déplacé benn fan rek ñàkk seen liggéey. waaw wala ñu ne fu sore sore nga xam ne nii duñ mën a ñëw. waaw bu dee fii Dakar la képp ku fi nekk suñ waxtaanee ba déggoo jërul ngay déplacé am naa oto boo xam ne mooy jël say garab indi la ko ba sa kër mu jox la ko Ah, waaye yow doo ñëw fekk si déedéet man moom du fekk si kenn xanaa kay ñu waxtaan munoo ñëw ma boole laa ku la indil say garab wala su dee ñaan yu munta ñàkk la bu dee ndax du ñaan yëpp lan mën a yónnee waaw am na si yoo xam ne bu dee ay tawat la comme nga am lu mel ne ndoxum siti dinañ si ñëw ak yeneen ak yeneen yoo xam ne moo nekk si yow bëgg mu saafara waaw mën na noo jël traitement bi defal la ci enveloppe jox alu dakaar bi bu ñëwee dem jox la nga commencé faju mais su fekkee ay ñaan yoo xam ne du lu mën a yónnee da ngay ñëw fekk ma sama kër sañee daal di kilifa yi ci dëkk bi nga xamante ne dañuy laqatu guddi du doo dem seen kër waa xam nga loolu beneen domaine la xam nga léeg-léeg nga jëflante xam nga jàpp naa la waaw xam nga mbocc bu mel ni mbayang moo la mën la tax a jóg xam nga mais kilifa yaa ngi lay dugal ci ruq yi soxna mbayang léeg-léeg nga jëflante ko xam du ñàkk nga jóg dem fekki ko parce que moom du mën a ñëw mm-hmm. waaye nag wax dëgg yàlla bu dee koo xam ne dafa soxla dafa soxla wàllu ñaan <laughs> yaa ngi may reeloo sax <laughs> ku soxla wàllu ñaan daal fekk ma sama kër boo ñëwee ñu jàpp la la si kàttanu yàlla xamul ne dama koo xam dégg <laughs> li ma xamal ne bagages yi papam daan dem hmm. ruq yeeg ruq yeeg ruqaat yi moom lay àndal léeg muy dawal di jël bagages yeeg yooyu hmm. li ma ko xamal xamal xamul ne hmm. xam naa ni des fois dina fi dugg te tardivement ah, ay minuit jëm une heure yooyu fajar gi bala mu ne cuy bañ naan sa njeddaale ngi nii mu génn dox doxam xamul ne xam naa loolu ah, mais ba tey tey sëñ mm. Daly wàllu kër. Mm-hmm. bari na ñu la koy joytu waaw ñi nga xamante ni seen kër. def mm-hmm. nañ fa musiba ba. Mm-hmm. kër gi mënta naat. def nañ fa dara ba nit ñi mënuñoo am jàmm mënuñoo wér. nit ñi mënuñoo déggoo. nga yor ay ñaan yoo xamante ni koo ko jox mu def ci kër. wala nga def ko mu lekk. ñëpp dinañ déggoo nekk benn. nekk ci jàmm. moo xam jëkkër ak jabar la nag moo xam yaay ak doom moo xam ay wujju peccorgo moo xam ay frère. se ñuy jaaxal daal seeni i waajur mhm. ci ñàkk a déggoo mhm. euh, jëkkër ak jabar moom dama ko jël teg ko ne parce que mhm. moom gaa jigéen ñi moom nee nañ yow yaay ma marabout dee femmes mais euh, ñaanu biir kër euh, sëñ daal yi daf koy def waaw ñaanu biir kër dañ koy def xam nga lu jiitu ci loolu dama laa wax ne la nit ki lépp lu muy def lu nekk na ko seet gis nga suuf lu toll ne doomu aadama yi fiy dëkk dina dëkk ci suuf te doo ko xam moo tax bu buñ la jaayee pàkk rek wala nga bëgg ko balaa nga koy jënd na nga xool ba na nga ko xool ndax bëri na waaye kuy tabax kër ba mu àgg sax te du ci dëkk mhm. bëri na waaye kuy tabax kër ngir yaayam wala ngir famiyam te seen tànk du ko mas a teg dëgg la parce que dañuy fekk kër gi am boroom ñu tabax ko ñu jaay yëfi tubaab rek moo très bien bëri na ñoo xamante ni 15 la titre foncier wala bail la na est-ce que c'est juridique waaw daal di tabax bëri na si ñoo xam ne ñu ngi si kaw yàlla xam ne ne seen gàllankoor te su maanaam mool ñu teg si terrain fii moo leen ko teg suuf du noonu suuf dafa am lu koy xool am noo koy dencee gis nga soo ko moomee ba noppi dafa am loo fay def sa Jadal yaa ngi waajal yoonu Mbàkke ba tey loolu luñ ma nettali la ma yoonu yoonu Gàmbi waaw ndax euh, nit koo xamante ni dafa jëndoon këram 91 mhm. ba suñu jën yàlla tey mhm. mënu faa teg tànkam ndax abaloon na ko nit kooku nee na ko moom bakkanam la ci teg du ko delloo kër gi waaw xam nga loolu dafa bari nag loolu ndakaaru gi ak ñi nekk bitim réew nga xamante ni loolu soxna Mbayang doguma la xam ne ne ndakaaru gi sax la ëpp booy xool di nga gis nit ku luyee ci kër rek dem ba si biir dootul fayati fa mu koy teg mooy am na lu mu jëfandikoo loo xamante ne xay na bu pexeem yow mi moom kër gi dootoo ngaan su pexeem jubee sax boo boo sàggantuwul yow kër googu moom beneen la ñuy waxati mais du doon yow bari na bari na ay nit ñoo xamante nii maanaam danoo ñeme suñu borom ñeme goo xamante ni tooñ moo leen gën a yomb ni ki baalu léegi yow nga war a dem Gàmbi génne ji ko kër ga maanaam non du kes question dem jaay ko doole génne ko waaye du ay bagages am na yu ñuy jëflanteeg ñu mel ne moom waaw nga xamante ni ki nga xam ne dafa defar këram ba àgg bëgg faa dëkk akum njabootam te bëgg bu fa dëkkee jàmm képp di fa juddoo waaw bëgg bu fa dëkkee néew yéex faa génn parce que loolu yëpp da koy jiital ci kër mhm. avant nga fay dëkk mhm. gis nga am na kër yoo xam ne mhm. dëkk koñ bi yëpp mën na ñuy dajal saa su nekk ñu toog ay at doo gis nit ku ñu leen si gildigaale est-ce que dafa am ay denc yu ñu fay def yàlla nañu ko yàlla defal dafa am ay denc yu ñuy def ci suuf yoo xamante ni kër goo ko def kër googu sunu borom moo koy aaral boppam saa bu xëyee ay ay am na yu koy aar yoo xamante ni du sax lu nit ñi di gis waaye sa beneen façon ma ma ñëwaat ci xam mm. naa digg na kii fu mu toppee mm. Euh, am na ñoo xamante ni dañuy am seen kër kër gi dina dem euh, kër yi ko wër yëpp dinañ leen tabax liggéey leen liggéey bu jaar yoon mm-hmm. ñu naan ku moom kër gi ku moom suuf si ku moom kër gi ku moom suuf si ba ayaata dëgg la nga ñëw ci sañ ya daal li mun la demal jof ci suuf si indil ma ma def ci li ma lay def mhm. jox la ko nga dem sottiwaat ko ci loo ko tabaxee dalay lay yomb waaw dëgg la boobu boobu boobu secret loolu lu wér la loolu suuf si am na lu luñ ciy def loo xam ne ci meewum béy lañ koy booleel defal la ko ci butéelu weer nga suul ko ci kër gi balaa am weer nga commencé ko bu soobee Serigne Touba kon laajoo fu ma xamee yooyu waaw loolu moom lu wér la loo xamante nii ñin koy defal bari na waaw ñu koy defal ba loolu moom kër ku moom suuf sa ku nekk buñ la ko si defalee nga ubbeeku bu soobee Serigne Touba. Mhm. waaw incha allah laajoo laajoo fu ma xamee yooyu yëpp. waaw xam naa yow yow moom. <laughs> moom day rek dañoo yàgg. waaw dañoo yàgg. wàllu xam naa yéen daan waxtaanee ay 2015 nga fi indi tey. waaw parce que résultat yi ñoo wadd. <laughs> loolu moom xam naa ko bu résultat yi waddee dama koy jàpp téye ko. day na keemaan euh, ki nga xamante ni dafa bëgg ñàkk soxnaam wala dafa bëgg ñàkk borom këram. Mhm. parce que léegi fuqatim jëkkër mi bari na. Mhm. fuqatim jabar mi bari na xamante ni dafay toll ci wàllu sëy nekk ci di sëy ak boroom këram te yàlla tax bëgg ko góor jóge ca àll ba xemmem ko dina ko jaral lu ne ba def loo ndaw si loo xamante ne dañ naan kii jikko bii ko dab dëgg la lu mu ko tayee mhm. jigéen ñu ci bari di bàyyi seeni borom kër di dem di fo mhm. ak koo xamante ne sax jaru ko mhm. ñag boobu ngay ñag moom loo koy ñagee sungu fak reen la wala alxuraan loolu dafa am si ñaari façon ñu koy liggéeyee loo xamante ne nii mm. ki nga xamante bëgg a aar ba góor du ko gis xeemel ko ba mën koo jëfandikoo parce que sa soxna mën nga koo wóolu mën naa jub ba gën a jub ab raay mm-hmm. waaye ab saay-saay mën naa jóge fële jëfandikoo loo xam ne su ko woowee mu ñëw dëgg la ko def loo mu def ko te du ko tey dëgg la léegi nag am na yun lay jox yoo xamante nii su fekkente nii nin la ko waxee defe nga ko mm-hmm. sa soxna ku ko tiim dootul doonati góor bu dee soxna si nag moo yor jikkoy boppam di ko def am na lu lay jox loo xamante ni yàlla xam ne ne bu ko góor tiimee kanamam ni ni yaramu signal di def noonu lay def Hmm? su boobaa nag dama lay jox secret bi nga xamante nii soo bëggee mu dañ moom ngay def su boobaa day dañ. dégguma delluwaatal foofu. liñ lay jox su ko. soxna jabar juy fo. soxna suy fo. waaw nga am sa soxna muy fo. nga tere ko mu bañ. waaw am na luñ lay jox loo xamante ni soxna si bu ko góor tiimee. waaw yaramu signal ni muy def dégg yi ni muy génne. waa noonu la awram di def noonu la awram di def. am na nag lu koy dindi loo xamante nii bu bu ma la joxee saafara si man dinaa la wax ne la nangam. saa bu li ngay wër amee nangam nga koy dindee xam nga kooku moom boo xasee ba def dootul moyeti yàlla déedéet day tiit waaw dootul dootul moyeti yàlla lii sax yàlla xam ne naruma koon parce que bari na ñoo xamante ne nii am nañ ci ay relation yoo xamante ni am na si yoo xam ñoo xamante ni yàlla xam dañuy dem ba gis ko jëxëran foto ko ne la la nga waxoon am na looloo tax ma ñëw ci boobu question loolu mais lu yéemee ngi noonu ah lu yéemee ngi noonu parce que dafa bëri mais sëñ daal li muy wecci koo loolu bari na waaw moom nit ki ko soxla nañu woo rek parce que ñun yàlla xam ne ne dimbale askan wi moo dangaa baax il faut man <laughs> parce que des fois nit ñi dañuy gis dara mm. ñu yaakaar ne lii dafa metti wala dara fekk boobu mettiwul de yàlla xam na ko ni leen seen way jur yare mm. li ñu donn mm. li ñu yor moomal ko seen bopp moo tax ñu laabir ci laabir gu toll ni macha allah fa tabarakallahu ku ñëw rek danañ la jàppale waaye nag soxna yi nañ tee seen bopp mais waroon ngeen ñoo defal ñun jigéen ñi ñun tam mm. ñoo xamante loo xamante ne bu sa mm. jëkkër mooy jéem a ñëwit mm. gis signeel di waaw loolu ñoo ñooñu liñ leen di waaw tax léegi ngeen nenn ñu ñun te nennuwu leen seen bopp maanaam ñooñu liñ leen di defal waaw su fekkente ni ku jigéen ki def na ko waaw yàlla xam ne ne boroom këram dootul yi am na yu lay defal loo xamante ni li ma mën a waat ci Sëriñ Tuubaa mooy soxna suñ ko defal nga fexe ba maanaam nin la ko waxee nga defee ko nii yow mën a waat ci alxuraanu karim sa borom kër bu gënoon a dëng ba gën a dëng ab sele ba yoon yàlla xam ne ne du mooy te leneen da si topp loo xamante nii même ku ko jéem a moyloo sax dala koy wax mm-hmm. waaw même ku ñëwoon jéem a caaxaan ak moom sax dina ñëw ne waa diw mii de ku bon la ndax daf ma doon wax nangam ak nangam loolu araamul déedéet déedéet araamul ay mbir la yoo xam parce que defal nit loo xamante ni day day bàyyi la yàlla tere la yàlla tere mi ngi mel ne kii naan sànkara loolu jaamu yàlla la loolu itam bari nañ ñu la ko dëmbaale kii ñiy jëfandikoo ñollu euh, bëgg koo bàyyi am na ci ñoo xamante ni sax ñoom seen en propre personne ñoom ñoo koy bëgg a bàyyil seen bopp am na ñoo xamante ni seen i doom dañ koy door mhm. ñu bañ ñu taañaañal des fois dañ may fëgg man ma ne mhm. leen bariwul lu ko nit di waxtaane ci man loolu dañ ci yor ay secret waaw dañ ci yor ay secret yu wér yoo xamante ni gis nga ki nga xamante ne nii mm. mooy jëfandikoo am ñol mm. wala ki nga xam ne mooy tux mm-hmm. wala ki nga xamante ni maanaam ay mbiram ci lenn képp la ko xër muy jigéen mm. ñooñu dañ leen di defal ay mbir yoo xamante nii bis buñ ko jëfandikoo mm. ci kàttanu yàlla bàyyi sàngara bàyyi fóon lépp luy aajoo kumtu du yàgg te du yàgg non loolu bu ko jëfandikoo si juróom ñetti fan mu ba juróom ñetti fan bis bu ko jëfandikoo keroog la koy maanaam la muy naan di gindiliku te duñ la ko defal ci sàngara duñ la ko defal ci dara même su fekkoon fekkonte ni yow yaa am mbokk moo xamante ni da ngaa bëgg mu bokk te munoo koo jox lum naan mbaalum sangoo sax dañ koy bàyyi waxuma laa nag maa nit ki bëgg koo bàyyi boppam ki ko ki koy jëfandikoo te nga bëgg mu bàyyi ko te xam nga ni boo ko joxee waaw du naan wala mu takk waaw yow mën nga def sa li ngay def rek mën def ba si yàlla ak mbaaxam mu bokk ba mu set wicc ci moom insha allahu taala mën nañ koo dingit loolu ba mu dañ ci moom xam-xam moo wóor Serigne Yeddaali Ndiaye diwaanu Touba mm. moom lañ jëli jiwaat indiwaat ko mm. gëju fi nag waaye macha allah ni nit ñi rafet loo waxtaan wi mm. moo tax ñu delloo si ko waat te am naa rafet njort gu tol ni dina sàmmoon teg digganteem ak boromam rawatina ci di clients yi ndax dégg ngeen ni nga xamante ni noonu la ubbee euh, waxtaanam wàllu rab ak yooyu moom ku xam Serigne Alassane Ndiaye góor yàlla ak njabootam xam ni dañ ci yëngu bu baax a baax ak yenn nag ci jàngoro yi mm-hmm. ndax rab mooy jàpp nit ba mu nekk magum jëmm di tuur ndox waaw wala déet waaw loolu rab dina koy def mm-hmm. nit ki di nga gis koo xamante nii day dem ba am borom kër di di tuur ndox mm-hmm. mbaa mu dem ba am soxna di gént di tuur ndox te sobe boobu waxuma laa nit ki koy def ki muy nekkal mais day dem ba kër ga nga nekk sax soo doonee mag di ko fa def ci kaw lal da ngay dem ba da nga leen di tëj ñoom ñëpp kër ga day dellu ginnaaw kër ga dangay dem ba day dellu ginnaaw moo tax ñu naan moo tax mag ñi def ci ak fiir goo xamante ni ne soo amee soxna muy tuur ndox gaaf gu bon la yor ba wàcc ko mm-hmm. Mm-hmm. parce que ni muy delloo kër ginnaaw moo tax mm-hmm. loolu nag am na lu ñu lay jox loo xamante ni su fekkente ni da ngaa bëgg mu bakoo te yow boo ko joxee du du takk mbaa du sangu takk ko ci rondal bi rek bu fa fanaanee ñetti guddi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dootul tuurat ndox ci lal rondal gi muy tëdd waaw takk ko ci rondal gi muy tëdd rek bàyyil ba maanaam waxtu timis jot nga ñëw ci root ndànk ci rondal gi takk ko ci benn benn tagar lal xam nga bii passé bi nga fi ñëwee wax ci dama ci dellu siwaat euh, da nga ko commencé defal ay nit mhm. man ma ne la am naa ko ko soxla mhm. nga ñëw toog tey ne ma fàtte nga ko <laughs> léegi nag diggante bi ñaari nit dolleeku waat nañ ci muy ñetti nit léegi nooy def ak man <laughs> waaw yow damay def ak yow noo xam ne yow dama la koy yónnee incha allah fii la ko waxee en direct da moo tax ma kalaame ko gars yi fii en direct euh, ci euh, wàllu ci télévision waaw mhm. sa sëñee daal yi ban bayre la sa woy jur di defar ba nga doon na ko ci moom ak ubbeeku ba tabaarkàlla macha allah catuma leen ah njabootuk Alsaan Njaay góor yàlla xam naa ni mënalu ma leen dara sax <laughs> sëñ sang Njaay ñëpp maa ngi leen di nuyu mais mais mais mais mais mais mm. ban bayre ngeen di def ak ban ubbikaay mm. ba tax tabaarkàlla macha allah daal mm. du ma yeggale ah xam nga xam nga soxna Mbaye wàllu bayre ak ndax bayre boobu mi ngi fi ba léegi de wàllu bayre du ñëpp sax ñoo ko mën a am waaw gis nga bayre waaw pour wee gën a siiw ni ki maanaam secret bi dëgg la bëri na waaye ñoo xamante nii dañ naan dañuy def bayre bu wér ak ubbeeku ak ubbeeku yu wér te mënuñoo xëy am dépasse ñoom ña nga xam ne nee nan dañ koy def mm-hmm. soo demee seen kër ci mbedd ma nga leen di fekk ñu toog wala seen saal dëgg la xam nga loolu am na dëgg la te ne bayre yu wér la na am mm-hmm. yow nag bu fekkente ni yow yaa ko bëgg bu dee da ngaa bëgg xool ndax ki li muy wax mën na ko wala déet ñëwal sama kër. xool ko ci boppam. waa déedéet déggoo man xam nga dama na xeet wi <laughs> ban bayre ngeen yor. ay bayre yu wér ak ubbeeku ay bayre yu am na fi yoo xamante ni yu ànd ak kaaraange ak muslaay lay doon. waa léegi comme dellu si nga ci man xanaa man boog di ma taal boog. yow tàkk nga ko fële. yaa ko wax. <laughs> waaw léegi ban mois lañ nekk nii ut Ah, dinaa ko may ba février ba xam moom daal daal tàcc nga ba pare incha allah moom daal tàcc nga ba xam naa daal bayre bu wér bu ànd ak kaaraangeeg ubbi ku ko bëgg waaw incha allahu rabbi dañ ciy liggéey yu wér waaw yoo xamante ni képp ku ko jëfandikoo di ci gis sa bopp mais retour à l'envoyeur itam bayre tubaab nag di bayre nit ku ñuul waaw mais des fois itam da ngay mer mm-hmm. nit def nit ki lu bon mm-hmm. nga defal ko loo xamante ni ku ko laalati ku ne mm-hmm. boo moytul di nga jóge ci am néewam parce que des fois da ngay mer ci mm. ñaawteef yi nit ñiy def nit loolu moom tam ban secret la waaw loolu moom wax dëgg yàlla ñi ngi siy jëflante ñu wax xam nga soxna si nit ku ñuul dafa soxor mm-hmm. nit ku ñuul moo lay gis doo ko def daara mu bañ la mm-hmm. di la fexeel suba ngoon bu dégg bëccëg te doo xam yow ki lay fexeel kan la mm-hmm. léegi nag boo ñëwee si ku mel ne man mhm. dama lay defaral loo xamante ni yow ki lay fexeel mhm. ah bu jéem a tees yow mu dellu si moom dëgg la xam nga loolu du it ba tey du bàkkaar déedéet xam nga nit ki nga xam ne defoo ko waxoo ko sequ leen dara mhm. amaana sax du sa mbokk nga nekk ci amaana ngay lekk ci wërsëgam waaw très bien ba noppi it maanaam bu sañoon bis bu set ngay gën a ñàkk dëgg la sañ ngaa aar sa yaram ba su nit jógatee maanaam bëgg laa njabar pour nga dellu ginnaaw la muy def di dellu si moom su fekkoon daf laa yéene lu bon mu yéene la loo xamante ni musiba la ah bu ko bu ko posé ko moo ko teg boppam. parce que moo jóg di dem def def defi lu bon. am na solo. waaw Serigne Yadaly la ñu àndaloon ci émission bi temps bi gis ngeen xaabaabal naa bu baax a baax ndax day sama xarit. Mm-hmm. macha allah fa tabaarakallaa am xam-xam te laa biir ci lool. Mm-hmm. donc bu leen ragal numéro yaa ngi noonu 77 mm-hmm. la 122. 77 60 wala 76. 842 74 72. numéro yëpp am na whatsapp boo ko ci woowee incha allahu taala da koy jot directement jafeelu. yàqul dara xeetu jàngoro yi dama koy tënk rek ku xam ku leen xam itam xam leen ci xeetu jàngoro yi bu ci mel ni siti hémorroïde ak mm-hmm. kattan kooku moom mm-hmm. ku xam ba ngeen dooree ba suñu yàlla jon yàlla tey daanaka mm-hmm. mën naa ne sax moom ngeen jàngee ñaan dëgg la ci lu wér parce que yàgg naa àndandoo ak yéen ci loolu dëgg la ci lu wér xam nga maanaam ñun soxna si suñ kër boo fa duggoon am ndoxum siti bu la neexee boo soxlaa sañuy daal di jërul ngay egg moom dëgg la boo yemee ci soxnaam mu jox la traitement yi la soo yemee si maanaam sama doom bi nga xam ne ni daanaka mooy siñ fàllu mm-hmm. jigéen la soxna fàllu mm-hmm. boo ñëwee si moom sax mu jox la traitement yi ndax ñun li nga wax rek dëgg la daanaka si loolu lan débuté ci wàllu ñaan siti ak hémorroïde ak képp koo xamante ni am nga jàngoroy ndoxum siti waaw di sentir sa yaram di tàng wala muy def ay picc wala muy def ay taas wala yaram yi di xesan mm-hmm. wala xarante baaraam yi di xar sa tëssani di xar wala óom di metti wala sa tànk di tàng wala muy jàpp sa awra muy tuuti di dellu ba mel na bu xale wala bu sa awra bu jógee di gaaw wàcc wala mu mm. oyofal sa mànni wa dem ba nga xam ne nii doo mën a am doom mm-hmm. wala mu dem bay jàpp say bëñ say bëñ di faral di xar mbaa muy metti mm-hmm. mbaa muy jàpp say bët muy xesan di xonq fu mu toll mm-hmm. mbaa muy jàpp say nopp muy xesan foo toll di am di yor jurgóor di jurgóor ñu naan borom bopp la mbaa nga mu jàpp sa bopp sa karaw di lel mbaa mu jàpp ku jigéen ba daanaka karawam du boppam du am karaw yooyu yëpp ay xeetu signe la yoo xam ne jàngoro ndoxum siti moo koy def kum ne si moom boo ñëwee traitement am si 15 jours lan la koy fajal ba mu dañ. Mhm. su fekkente ni dafa yàgg si yow nag ngay jigéen mën na laa jural ñàkk am doom. Mhm. su fekkee dafa yàgg ci yow di góor mën na laa jural ñàkk am doom ba tey. Mhm. mën naa demit ba jural nit ki hémorroïde. sa biir di gonfale di sol air di jàpp sa ndigg muy metti yaram bi di diis di mm. tayeel léeg-léeg bopp bi di metti mm. sooy dem toilette lu wow mooy génn wala mu dem ba def picc ci suuf booy dem toilette muy metti muy toj moo tax en général nga gis ku am hémorroïde lu mm. ci ëpp day jeex rek su demee ba commencé sañe deret ji muy génne ju bari ji muy génne mooy tax maanaam foo ko gis day jeex waaw nekk na jàngoro joo xam ne moom it comme daal traitement di ànd ak soxnaam di gaaw a traitement yooyu nag ñun ñaare ku am soxna lañ koy jox ki nga xamante nii wala koo xam ne nii dafa fawee boppam ba feebar daf ko si mhm. bu dee koo xamante nii dangaa dem bëgg a caaxaan bëgg traitement yi mhm. soo ma ko waxee même boo ma fenee ba ba jox ma ko it mhm. sa digganteeg sa borom la waaye garab yu wér lañ ciy joxe yoo xam ne ku ko jël ci mm. kàttanu yàlla ak mbaaxam ci boo ko tàmbalee ngay gis résultat d'accord traitement it lay doon d'accord yii ma la wax nii képp kuñ ko jox mm. yàlla xam ne ne boo si gisul résultat loo ma joxoon ma delloo la ko wàllu jabet ak tension ak yooyu noonu moom non non non man jabet du ma ko faj tension su fekkente ne nii nag dangaa dem ba jabet bi am gómbaañu dagg sa baaraam mm. du ma ko faj mm-hmm. su fekkee tension la xaw ma sax lu koy calmer mm-hmm. du ko faj Mm-hmm. waaw bu fekk ay hépatique A B yooyu yëpp. duma ma ay cancer ak yooyu yëpp doo ci laal très loolu xalaatu yow daal li nga ñemee mooy siti hémorroïde ak kattan bi. <laughs> waaw te amaana sax boo fa ñëwee te fekkoo ko fa bu la bàyyee ak njaboot gi. waaw incha allahu taala danañ la toppatoo ci kattanu ak mbaaxam. ci kattanu yàlla ak mbaaxam ndax wax naa leen ba ma leen di xam ñoom. Mm-hmm. ci loolu la ñu jàngee ñaan daanaka lu mel ni garabu ndoxum siti mm-hmm. hémorroïde ak kattan. tabarkàlla macha allah gëstu nag xam-xam jàng alxuraan doon ay taalibe Serigne Touba Euh, tabarkàlla macha allah gëstu lu baree baree bare moom mii secret yi ñu jox ko mm-hmm. ndax la ma wax rek la ca maam a koy jël mm-hmm. tabarkàlla macha allah te jël na ko ba mu doy mm-hmm. euh, sëriñ Yadaali moom lañu ñu àndaloon numéro yaa ngi noonu sëriñ Yadaali euh, ñu bàyyi la nga tàggoo Touba ya fa xew dëgg la euh, ndox mi ni mu leen des mm-hmm. ni mu méttee mm-hmm. ak sang bi nga xamante ni moo fi bàyyi ko mm-hmm. doonoon koo xamante ni kenn la woon ci yéen fa ngay jaare rek tàggu mbokk internet yi ndax temps bi xaabaabal wallaay ndeysaan ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi massawu bu baax a baax njabootuk Cheikh Ibra gépp di leen siyaare ndax wax dëgg yàlla ki fi bàyyikoo li nga wax rek daa doonoon suñu sëriñ doon suñu kilifa doon suñu lépp maa ngi fàttaliku am na bis mu wooluñu ñu dem wuy ji këram mu ñuy booleek benn taalibeem boo xamante ni taalibeem bu sës si moom mm-hmm. bu yëkkati xaalis bu bëri jox ñu mm-hmm. ñu delloo ko ko ne ko ah, ñun kat Fall dañoo bëgg lii nga ñaanal ñu mu yombuñu ñu ndax ñi ngi lay xool bët yéen amoon yéenay xool ko sa maam Cheikh Ibrahima mu ne tamay moom Mm-hmm. moom suñ Cheikh Jëm mu wax loolu tamay moom tamay moom wallaay Cheikh Jëm kon Cheikh mu sotti la dëgg la pire ñoo ngi koy ñaanal fa jëm yàlla na ko dàqal fuuf fu mu jóge te amuñu ci sikki sakk allahumma di ñaanal ki nga xamante ni moo fi toog mm. sunu borom yàggal ko fi lool tam ànd ak wér ci doole Sëriñ Tuubaa Serafal allahumma la koo xamante ni bu bu bu ñëpp royoon ci moom rek mm. Sénégal di nga fi yéex a dégg doo fi mës a dégg sax ñaawteel dëgg la dëgg la gën a rëy ay jëf te néew ay wax mooy suñ Cheikh Jëm ndeysaan doo ko dégg mu wax si dara doo ko dégg mu commentaire si dara. déedéet doo ko gis sax ci média sax mu dem fenn. déedéet. nekk na fi ba jóge fi kenn mës sa dégg suñu seex jëmb dem na Dakar wala tukki na fenn wala dem na fenn. dëgg la. ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla bu loolu weesoo mbënd mi it sonal na waa Touba lool mhm. da ngay gis quartier yoo xam ne ne quartier yi lëmb ñoom ñëpp dañuy génn mhm. bari na fa it ay kilifa yoo xamante ni ak ay nit ñoo xamante ni am nañ ay kër yoo xamante ni yàlla xam ne dañ koo tëj nañ dimbale askan wi bëri nañu fa sonn trop mm, mm. man nag li wax dama koo gis mm. képp koo xamante ni am nga fa kër goo mën a aale bu doon bu doon téeméeri kër man soo woowee ma jox ma boole laaj ñu ñu ñu ko dëkke ñu ko dëkkee dëgg la ndax wax dëgg yàlla bëri nañu fa sonn ñoo xamante ni wax dëgg yàlla saa bu ñu xëyee ñu ngi wut fu ñu dëkk am na solo bari na nag ñoo xamante ni ay kilifa lan génn nañ seeni kër sax mhm. joxe ko mhm. ngir nit ñi dëkkee ko noonu la waaye bëri na ay commerçant yu fa nekk ay borom yi xaalis yu fa nekk yoo xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi tëj ay kër yoo xam ne buñ ko mënee ubbi askan wi nekk ci abale ko benn ñaari weer gaa ngi ñëw taw koo xam ne sa gan da daan ñëw di màggal si fekk sa kër ndox mi nangu ko waaw wax dëgg yàlla day am du neex dëkkanu dëkk moom daal nan nan jàppalante daal jërëjëf waaw comme Touba ku leen naw ci jàppalante ak mhm. diine nga leen nawee nan ci continuer rek incha allah ñaan Serigne Touba yokk xewal ñi ñëpp amiin amiin jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax Serigne Yadali Ndiaye jóge diwaanu Touba mm. macha allah boo ko woowee téléphone ni mu ko waxee rek euh, duy ñëw Dakar waaye nag ku muy jëflanteel allo Dakar yaa ngi fi mm. te ay chauffeur itam ñu ngi fii di dox ay mission Euh, lu ci waay bëgg rek jëflante kook moom incha allahu taala yàlla na ci yàlla def nga gis résultat euh, ni ma koy waxee saa su ne lay sottal nag sunu borom lay jógee waaye nag nit ki sañ naa sabab mhm. lu ba jubook sama borom ba lu mu ñaan lu ne yàlla may ko ko yàlla nag yàlla defal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox rendez-vous incha allahu taala très prochainement ak beneen gan mhm. ci biir Kër Mbayang di jaajëfal sama technicien du jour Libas mhm. di ko ñaanal wér yokk ba yëg ko ak poche yu def dara yàlla def jàmm ci Sunugal 24 mbokk yi incha allahu taala noonu lañ leen di tàggoo ba beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu fi amaanillah jaa ngeen jëf